bismillahi rahmaani rahim mbokk yi maa ak ministre Abdou Ndéné Sall ak préfet de Dakar sous-préfet Dakar Plateau fekk fii ministre Mansour Sy nga xam ne miin na barab bi ndaxte toogal na fii lu dul benn lu dul ñaar président de la République ànd tamit ak Serigne Mbacké Sabo ak ay directeur de service toogal fii njiitu réew président matisal Sall uutu fi premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne nga xam ne am ngant dem ci guddi moo tax ñëwul teew fi tey ni ko defee woon daaw wax ma démb ne ma naa ko fi uutu ci sama taxawaayu ministre yu yore mbirum njàng mi ak njàngale taxaw fi tey indil leen nuyoo président de la république président Macky Sall wax ne nuyoo bi ñu ko jëmale ci Sénégal yépp ndaxte tey bi tey jii daje bi mën nañoo wax ne Sénégal yépp ñoo fi teew ñoo fi teew ci ñoo fi teew ci këru diine ñoo fi teew ci daara ñoo fi teew ci kuréel boo xam ne bii ñoo ŋànk lislaam ci Sénégal kilifa yu bari teew nañu fi ngeen may ma rek ma lim ci ñoo xam ne nii su ma leen limee yóbbu na kilifa yi fi teew yépp di kilifa diine ñu ràññee ci sëriñ Fallu sooy bu Mbakke mu nekk doom toogal fii famille sëriñ Cheikh sooy bu Mbakke nga xam ne moom la ñu dippee bi tey mu yóbbuwaale képp koo xam ne kii njabootu Xaadimu Rasuul na wala nga jokk ci yoonu murit di nuyu tamit sëriñ Pape Aboubacar si di nuyu Serigne Abdou Malick Ibrahima Niass di nuyu Serigne Bou Khalifa Ndiassane Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck El Hadj Abdoulaye di nuyu tamit ndey daara yi nga xam ne ñoo ngeen leen fi ràññee sànq. muy soxna Mariama Ibrahima Niass te rakkam Hawa Niass toogal ko fi muy soxna maam Anta Dem daara Poroxaan di Adja Binta Thiaw daara Aïcha Ummul Muminin di nuyu kilifa diine yi nga xam ne yépp teew nañ fii di nuyu sëriñ daara yi fi teew di nuyu ndey daara yi di nuyu ambassadeur yi nga xam ne ñoo fi teew ñu ràññee ci chargé d'affaires bu ambassade bu Palestine docteur Mouhamad Makhtar Mouhamad de Mauritanie nekk ganu fédération bi ci cérémonie bi di nuyu président Moustapha Lo président fédération bi ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi nekk ci bureau bi ak képp koo xam ne kii yaa ngi jokkoo ci fédération di nuyu Abdoulaye Dia di nga xam ne taxawaayam wax ko sànq fii dinaa ci dellu si di nuyu ñi nga xam ne ñooy doon saytu njàngum xale yi ba tey jii ñu war nga wax résultat yi muy jury bi yëpp bés bi nag ñi ko moom mooy ndongoy daara yi di leen ñoom ñëpp ñi fi teew ak ñi bokkoon ci jogante bi te teew ñu fi tey di nuyu xaafis ak xaafisa alxuraan yi nga xam ne yëpp tànn nañ fii ci suñu kanam di wax ne mbégte la pour man sant yàlla la tamit toogal fi tey jiitu réew mi président Macky Sall ci jataay bi nga xam ne dafay ràññee ay xale yoo xam ne yii dañoo wattu alxuraan seen dënn fees ak alxuraan rawatina nag bi ñu ko dippee Serigne Soye bu Mbacke Ibn Khadimou Rassoul di sant fédération bi ci li nga xam ne président Macky Sall nee na leen di sant bu baax seen taxawaay ak liggéey bi nga xam ne yéen a koy liggéey ci daara te jataay bii màggaay bi mu am ci ñetteelu yoon bi ko defee won na Sénégal liggéey boobu ne liggéey bu rafet la raw Sénégal raw Sénégal yëpp. président nee na mi ngi leen ci gërëm mi ngi leen ci sant mi ngi gërëm tamit Abdoulaye Dia bu Sénico pour li nga xam ne yépp lu ngi koy def ci daal di ko def ci njàngum Sénégal di ko liggéey ci koom-koomu réew mi nee na sa taxawaay rafet na li ngi ci sonn yépp ak ñi ci sonn yépp daan nañ ko yàlla fay ñu ngi gërëm tamit sëriñ daara yi imam yi chef religieux yi fi toog nga xam ne tey jii su fekkee ne xale yi tey ñu ngi leen di déglu fii ku ci nekk sa yaram daw kii alxuraan bi fii jàng sëriñ daara yi lañ ci war a ndokkale lañ ci war a joxe ñu kéel ak xam ne nag ñoom dañu tànn ci département yi tey ñu teew fii ñu di ndokkale ndokkale bu amul ab ci turu président de la république président Macky Sall di wax ne ñu di ñaanal ñi fi ni seen naataangoo yu mel ni Mouhamad Moustapha Diallo daaw ci Malaisie Moustapha Niang daaw jéeg fële ci Iran Mame Diarra Ngom daaw ci Malaisie Ndongo Sène Maimouna Lo Makhtar Sylla tànk yi ñu aw ba yëkk tëraayu Sénégal ci àdduna bi ñu fiy génn ñu présenté leen ci concours yi am ci àdduna bi yàlla na yàlla daf ñu yeggali foofu raaya Sénégal di wax ne fédération bi ñu ngi liggéey bu baax ak ministère éducation nationale rawatina inspection des daara ak service yi nga xam ne ñoo nekk ci gox goxaan yi ci région yi ak ci département yi di liggéey ak gouverneur yi ak préfet yi looloo tax tey jii taxawaay bi ñu mën koo taxaw te liggéey boobu su koy def dañ koo def ci ndigalu président de la République nga xam ne centre bi ma toogee oo na ma fii di ma laaj nan la demee ndax amu leen benn problème oo ne ma fii téléphone mooy bi ma génnee centre moom laa doon waxal mu ne ma damaa nekk ci ay liggéey waaye maa ngi taal télévision yi di xool daje bi ni muy demee ndokk bu baax ñi nga xam ne ñëpp ñu fi teew luyul ma leen ndokk leen ma fédération donc maa ngi di indi nuyoo tamit ci loo xam ne lii bi ma teewee la ma oo wax ma di sant yàlla ci daje bi muy daje boo xam ne bii tey ñu ngi kañ ay xale yoo xam ne yi dañoo jàng alxuraan wattu ko tari ko ci tari tari bu mucc ay waaye ñun ñëpp ñu war a sant mooy ñi nga xam ne ñoo may Sénégal tey jii ñu taxaw daje bu mel nii mooy maam ak maamaat yi kilifa diine nga xam ne ñoo jël alxuraan ñoo jël diine lislaam samp ko fii ci senegal jëlee ko ci rajo Mar Fuutiyu ci Xaadimu Rasuul ci Alaaji Maalik Si ci Alaaji Ibrahima Ñas ci maam Limaamu Laay ak chef yi nga xam ne yëpp nekk nañ fi ku leen doon lim ba suba tey jii lii su ko amee ñoom ñoo tax ñu am ko moo tax dañuy rafetlu torop fédération bi bi mu jëlee Serigne Souhaïbou Mbacké jël ko mu nekk pare dama wax ne tuddee nañu bisu alxuraan koo xam ne kii àddina ñëpp alxuraan la ko liggéeyal daara la ko liggéeyal looloo tax président de la mu xamee diine bi fi mu toll ci Sénégal daara fi mu toll xaj na pour yeggal ñaan bi nga xam ne mag yooyu moo xam ne ñoo fi indi diine indi fi alxuraan moom la ñu liggéey mu def programme de modernisation des cités religieuses su ko defee defal na ko sëriñ daara yëpp defal na ko kilifa diine yëpp defal na ko képp koo xam ne kii yaa ngi yëngatu ci alxuraan def programme boo xam ne bii tamit ñuy tabax fi nekk nii ay daara juróom benn fukki daara ñeent muy guleet muy daara publique yoo xam ni gouvernement bi moo koy moomal boppam jël nit ñi recruter leen président de la République koy tabax yow chantier yëpp mi ngi en cours yu ci bari fekk octobre dana pare incha allah li leen wax ne na moo wax fédération bi taxawaay bi mu taxawoon ak yéen daaw taxawaay boobu lay taxawaat ak yéen ren jii ci seen concours ak ci projet yëpp loo leen am dana toog ak yéen seet lan la seen lépp loo xam ne lii incha allah réew mi war cee dugal loxoom dana ci dugal loxoom. ñu ngi leen di wax ne président kontaan na ci seen taxawaay bu paree damay yi nga xam ne yépp dugal na ci seen loxo di gërëm comité d'organisation bi ku ko gis organisation bi xam nga ne organisation bu rafet la. di gërëm lauréat yi di leen sant di leen ndokkale di leen gërëm yéen ñëpp ci déglu bi ngeen ñu dëggu wasalaam jërëjëf